bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waa Sénégal laay waxal yéen ñëpp bàyyiwuma kenn ak fu sénégalais mën a nekk ci kaw suuf yàlla xam na ko waxtu yi may wax ak yéen lu ëpp téeméeri avion ak juróom benn fukk yu avion yu Émirats arabes unis wala Dubaï ñu ngi ci kaw jaww ji naaw te yëpp réew moomu la ñuy liggéeyal te ñun ñëpp xam nañ ne koom-koomu kaw suuf tey li doom adamay yi jëlee ci suuf si mu tiim te yàlla wàccee ko fa liñ ci am cim koom ñoo ko ëppale Dubaay ma tey ngeen a ñu jëfandikoo suñ xel bañ a topp suñu xol ba bu ñuy dee dem safara it àddina moom ñu nekk fi ci aljanna ñun ñëpp nan lañ ko mën a defee. mooy Macky sàll mii ak juge ak gendarme ak sëriñ ak ku mën a doon tey sénégalais te ànd ak moom ci lii mu nekk te ñoom ñu xam ko niñ ko xamee ñun ne luubal gu ñu luubal alal réew mi moo tax mu jaral leen ñu bëgg ñoo yàqulu Ousmane Sonko yàq sunu réew définitivement kaay leen ñu waxtaan pour réew mi jag Sénégal jag doomi Sénégal yi ñëw ëllëg fekk fi réew mu mel ni Dubaay ba fii ak fukki at heure bi dana fekk téeméeri avion ak juróom benn fukk ak juróom ñeent yoo xam ne Sénégal leen moom daañ naaw ci jaww ji ay doomi Sénégal di ci liggéey ñuy dajale xaalis di ko indil Sénégal ba kuy Sénégal nekk alja nekk ci aljanna yi kaw suuf bokk ñu mën caa yegg te yàlla tax yéen ñi nga xam ne ragalu leen yàlla def ngeen li ngeen di def ba pare moo leen tax ragal bañ usmaan Sonko ñëw ñun bëgg nañ mu ñëw ndax xam nañ ne jàmm la indi kaay ñu waxtaan jël leen li ngeen am yépp ngeen dem bàyyee ñu réew mi Ousmane Sonko fu leen neex ngeen dëkk su ngeen bëggeen ngeen continuer dëkk ci Sénégal te bàyyi ñu liggéey Sénégal te yàlla tax Macky Sall ña ngi lay woo ci loolu ña ngi woo képp koo xam ne sag ragal ak sag luubal moo tax nga bañ ba tax ngeen bëgg pamte pamte Ousmane Sonko yàqal ñu ko bokk ñoo ngi leen di ñaan ngir yàlla ngeen ñëw ñu def noonu li ngeen fi jël ngeen jël ko bu ngeen demee ngeen réglé ko seen borom. waaye ngeen may nit ñu jàmm ku gis ñu Macky Sall ni muy pamtup ne Ousmane Sonko mooy da ngaa bañ mu jiite réew mi li tax nga nga bañ ko bañ ko yàgg say morom ak ku mën a doon ku bokk ci système bi mooy li ngeen jël ci réew mi rek ngeen bëgg a reesal reesal leen ko te may ñu jàmm ngir yàlla kaay leen ñëw toog teg toog ci taabal gi waxtaane ko ay nit lañ réew yi di jënd seen bopp yëpp ay nit lañ da ngeen jël jël leen li ngeen jël ngeen jël ko lekk kook jàmm resal kook jàmm lu nga leen seen borom àtteeloon ñun d'accord nañ waaye ngeen bàyyi ñu Sénégal ak jàmm ko Ousmane Sonko ñu defaraat ko ndax fii ak fukki at ak juróom ñu mën a am heure bi téeméeri avion ak juróom benn fukk ak juróom-ñeent yi naaw yëpp air Sénégal nekk ci xanaa loolu ko waxtaane li fi nekk ci or bi ak surcon beeg jamaa beeg pétrole ak li nga xam ne moom la yàlla def ci suñu suuf suñu tim ci kawam ñu jël ko séddale ko organiser ko ba nga xam ne ñi ko soxla ñeneen ñi nekkoon suuf daañu ñu liggéeyal daañu ñu jox bu xaalis ñun ñu mën a dund ci jàmm wax dëgg yàlla affaire bi métti na parce que nag lu waay gàtt gàtt xel xam ne li leen li leen jàpp mooy da ngeen a bëgg a rawale li ngeen sex waaye jël leen ko te bañu ngir yàlla Macky Sall bàyyi li ngay def bàyyi Ousmane Sonko ngir yàlla bàyyi ko Sénégal nañ dugg ci urne yi da bëgg a dem demal man d'accord naa ci loolu te buñ ko waxoon Sénégal yi léegi ñëpp d'accord ñu may la jàmm nga dem wala nga toog yaa xam yaag mbooleem ko ànd ak yow ak lu ngeen mën a la jël bàyyi nañ leen ak yàlla ngeen bañ yàlla ñu bokk defaraat Sénégal toogaat te bàyyi li ñuy def nii man de li ñuy def ànduma ci réew moomu ma tudd léegi day am nay at ci gannaaw amuñu woon dara léegi ñoo gën loo defar ñu jënd ko képp ku am xaalis foofu ngay da xel daj dem lekkee ji ko fa kenn gënu leen a tedd ci kaw suuf magi Sénégal sëriñu diine yi sëriñu tariyaax yi kilifay ndombay tànk yi kilifa gouvernement préfet su préfet ñëw la ñu dellu delluwaat xalaat tabaay suñ coowaloo bi ñaata yar ñañ ci dóoroon teg ngaa yoo ko kër kër yi nit ñiy dee bat bu set ñëpp ay doomi Sénégal lañ mais yéen nañ xalaat ñun ñëpp ngir yàlla dama ne Sénégal yi bi gën a tuuti yor saretu mbaam ba ci Sénégal yi bi gën a rëy te ñi ngeen ñi ngeen yaakaaree rëy ñun ñëpp nañ bokk xalaataat li ñuy def dëgg ñoo ngi foyee suñuy xel koo ci wax mu ne la fii la sëriñ sàngam nekkoon sëriñ yooyu biñ fi nekkee seenum xel lañ jëfandikoo ñun xanaa amuñuy xel ngir yàlla ñëw leen ñëw leen ñu toog ci table bi kilifa yi woo leen nit ñu toog ci taabal bi masla Macky Sall na dem na bàyyi réew mi wàcc nañu ñu wote seen élection kuñ d'accord mu jiiti leen mais réew mi jëm ci kanam kilifa yi jóg leen ngir yàlla bu leen saytaane man saytaane mën na leen li ngeen yilif Sénégal ngeen yilif yilifu doon Gàmbi seen kër ngi tas ñun yilif ànd leen seen xel bu Sénégal tas seenum Sénégal ngir yàlla jóg leen billahi wallahi watallahi léegi léegi application bi ma tiim lopp téeméeri avion ak juróom benn fukk ak juróom ñeent yu Dubaay ñu ngi naaw ci jawwi plan planète bi ñu naan terre te ñoo ko moom te ñëpp ñu ngay liggéeyal réew moom te Sénégal moo ëpp koom-koom Dubaay te ñu ànd ak suñu xel Sénégal mbugalum àddina jeex na fi aljana àddina moo fi war a nekk ak ku mën a nekk koo mën a doon loo mën gëm nga nekk ci li nga nekk mais au moins ñu dund ci jàmm jara yoon la ñu yàlla may ñàkk ko te xam ko sax moo gën am ko te xamoo ko ngir yàlla kilifay gouvernement bi préfet sous préfet ministre président de la république bàyyi ma kenn kenn ku nekk ba nga juddoo ba tey jii li yàlla def ci sa bopp bi ñu la la yaay nangam na nga xalaat loola ragal yàlla ñu commencé te ci ne defar réew mi te bàyyi li ñuy def tubaab baa ngi ñëw dañuy jaxase pour intérêt boppam yéen ñi nga xam ne da ngeen jël ku ci jël mën a delloo si baax na ku ci mënta delloo si nga commencé ci tey fàttali passé woon bu ñu bëggee defar Sénégal lii métti na ba fu mu métti mën yem ñi dee ci kaw suuf lan lañ leen di wax ñi ci kaw suuf tey jii ñi ne ci biir suuf lan lañ leen di wax ñi kaw suuf te amuñu dara lan lañ leen di wax réew mi gën la am ñu ko jël féetee boor nañ fàtte nañ commencé ci tey wala yaasin nañu rëdd ci tey jëm ci kanam ku ne la nga yor nañ ci toog loo ci def nag yàgg sa borom la fu sa bakkan yem nga yem foofa boo demee lu la yàlla àttee nga sa ñaari man di d' accord naa ci billahi la si laa ilaha illa huwa d' accord loo mën a yor tey yaa ko moom moom nga ko ci doole moom nga ko ci loo ko mën a moom jëlal loolu nga dem ak moom yaa koo àndal ñu commencé ci tey bu ñu amee fukki at yàlla wallahi lasim Sénégal dana changé yéen ñi nga xam ne amu leen dara ñu muñ ko te bakoog ñoom ñu dem te ñu bàyyi deewoo beeg rayante beeg ren di wante bi yaa ma kuri yaa ma wokk mel ni ay gone bu doon doomu aadama danañ natt xelam ci ay atam kon ñu ne ñu ay gone lañ dañuy doog a judd kilifa yi jóg leen ngir yàlla woote leen réunion yéen kilifay Sénégal ngeen waxtaan woo leen Ousmane Sonko woo leen président Macky Sall woo leen ñi mu àndal ñoom ñu toog ci taawal gi seet nuñ négocier lijjanti suñ bopp coow li ne fi kat na leen wóor ne mu ci réew yi ci àddina bi yëpp ay nit dafa ñun nag bu fekkee duñ ah, ah, duñ ay golo rek dana leer jóg leen ngir yàlla ko am xel mag ñu ñi nañ jóg wax ci kilifay diine kilifay aada kilifa gouvernement bi jóg leen ku nekk ne madd ci kanam di seetaan ñi ci gën a néew di dee ñi ci gën a néew doole mais est-ce que ay dina ci bopp borom ñu jël ba jël ngeen jël leen seen ak suñu borom seen yéen ak seen borom la ñun loolu lañ gëm gëmuñu ko ñun ak suñu borom la buñ dee ku yàlla at mais nañ defar réew mi ngir yàlla jóg leen ngir yàlla jóg leen ngir yàlla jóg leen dañ leen koy ñaan ngir yàlla jóg leen ngir yàlla jóg leen ngir yàlla jóg leen bàyyi leen li ngeen di seetaan jóg leen ngeen woo kilifa yi ñu bokk toog waxtaan commencé ci tey jëm ci kanam ngir defar Sénégal suñu or beeg circon bi pétrole beeg gaz bi buñ ko jëloon organise Sénégal tey balaa mat fukki at daañ ñu am loo pulol ci ab yu ak ne mën nañ koo am jóg leen ngir yàlla ñëw ci kaw jàmm ji juróomi fani waxtaan bu ngeen ko luy woon daje yéen ñëpp yéen kilifa sénégalais bu kenn des balaa mat fukki fani yàlla ngeen ngeen ngeen am fu ngeen daje bu ngeen d'accord pour Sénégal mën a jëm ci kanam li ngeen di seetaan ba ni ñi dee ban njëriñ la am ah man de waaru kilifa kilifay Sénégal kilifay Sénégal yi dimbalal ngir yàlla sëriñu daara sëriñu tarixa sëriñu lu mën a doon sëriñu mboolem diine bu mën a doon catholique yi évêque yi pape yi jóg leen ngir yàlla ngeen toog waxtaan yéen moom Sénégal kenn mënu koo jël yi sa morom jóg leen ngeen def yëfi neen ngeen waxtaan daje leen place de Abdou Diouf ngeen daje ak président woo parti politique ngeen taay naa ni ngeen waxtaan ci lan ngeen di d'accord ba coow li jeex jéem leen lu ngeen d'accord li ci des ku ne bàyyee sa morom ak boromam du cheetëtë tët Sénégal vraiment vraiment Sénégal ni ngeen mel ñaaw na seen doom yëpp a ngi ci biti mboolem luy troxal doomu aadama yàlla teggil na leen ko ci kaw suuf yéen ngi toog ci ay milliards di xeexoo ba jàmbur nar koo ñëw jël ku ne naan yaa ma tooñ yaa ma kori lii nga jël jël naa lee ñuy màttantek mel ni ay ñaari ñaari façon nit wala ay golo ay xaj ngir yàlla senegal jóg leen ngir yàlla kilifa yi jóg leen ngir yàlla jóg leen ngeen daje jóg leen woo leen ñi gën a doon kilifa woote leen daje bu leen toog woote leen Sénégal yi woo leen ku les ku seen xel daj woo leen ko ngeen toog waxtaan yéen moom Sénégal kenn du leen ko defaral ku ñëw Sénégal njëriñam a ko fa indi yéen dong yéen a jóg ngir njëriñal Sénégal ngir yàlla jóg leen ngir seenu njaboot nit du màgg ba am yéen fukki at amum xel seen réew di yàqu nga toog di xoolaan jóg leen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw ah, sëñ bi maa ngi lay nuyu bu baax. pourtant avion yooyu Sénégal am na ko de mais benn nit a ko jël ñu koy wax Aliou Sall suñu quatre cent mille <laughs> di ci liggéey benn compagnie américain Aliou Sall yor na ko de avion yooyu <laughs> affaire yi kay am na Sénégal mais ay nit ay may bi fukki nit ñoo yore alalu réew mi di ci noos wala fukki nit ak juróom ñoom am nañ Sénégal am na ko de avion yu bare yooyu noonu mu ngi naaw ci jaww ji de mais Aliou Sall ko moom ak frère am suñu quatre cent mille <laughs> loolu kay moom fi ñu toll nii kay ñoom kay li tax ñu bëgg fee nekk ciment bañ fay jógee. ndax bis bu ñu fi jógee lay di ngeen yuuxoo gis nga yuuxu yu mag yi ñëwagul sénégalais yëpp dinañu ànd di yuuxu ndax Ousmane Sonko télévision écran grand géant la leen di tegal place la l'indépendance di wone di leen won kaay naka la ñuy sàccee réew mi tey booy boo ngeen préparer rek chaque jour moom bu ngeen deful dara après midi surtout weekend dem leen place l'indépendance ñu tegal leen écran géant won leen di ñuy sàccee réew mi ak ñett at lañ ko doon sàcc ak ñan ñoo ko doon sàcc ak ñaata lañ ci sàcc yuuxu yi mag yi dëgg dëgg dëgg dëgg Sénégal yëpp àndandoo di yuuxu dëkk bi riir boobu ñëwagul écran géant bu mag a mag a mag a mag a mag a mag a mag a mag la ñuy teg cherul moom lañuy teg place de l'indépendance ne leen weekend ba weekend chaque samedi ngeen ñëw na ñëpp ñëw seetaan naka lañu ñu sàccee aralu réew mi ci commencé ci ay Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf ak sengoor ba fii ak naka lañ ko sàccee ci yan condition lañ ko sàccee ak fan lañ ko dugal ak naka lañ ko jëlee ak ñan lañ ci associé ak complot ngeen àndandoo nag ful bi àndandoo di yuuxu prépare leen parce que ñuy foog ñu weer leen ma ni billaahi wallaahi yuuxu yu mag yi ñëwaguñ waaye mënuñoo am loolu yëpp te amuñu Wagner de <laughs> ñun kese rek mënuñoo régler problème bi de Sénégal kese mënul régler problème bi de contre ñu régler bari bari baro yi baro yi ci buntu kër Ousmane Sonko <laughs> ñun kese mënuñu koo régler de. Sénégal or bi Sénégal pétrole bi Sénégal gaz bi américains yi taxaw ki seen xel tekki seen bët France taxaw defe ni moo ko moom ah bu ko neexee France sax moom bu ko neexee parce que moom yëf yi mi ngi koy yóbbu anyway soo préparé leen ngeen defe ni ñun rek mën nañoo xeex xeex ko ci yaakaar dóor nga sa loxo ci ëkk wala bëti ku dóor ko ci xottu bu teel waaw ndax tey jii nii am na yu bare yoo xam ne ñu ngi ko bëgg a régler mënuñu ko le ils ont, dit, ils ont augmenté l'argent.